Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée les gars merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé les gars de partager les informations et mbokki sénégalais yi pour foo leen 14 régions du Sénégal à nouveau le Cup ñu ngi di également yi nekk ci l'hôpital hôpital yi ci kër yi ci kaso yi fàttewuñu leen benn yoon ñuy dëdduwaar na suñu borom gars on avance ensemble dans la magie de eSport TV, la famille gars on s'agrandit de jour en jour gars La bonne nouvelle gars la bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal moy kii di Moussa Niakhat gars jël na décision wax na ban équipe nationale lay football loolu nak exclusivité mu len jox na ndax moom def na interview ak wa RMC Moussa Niakhat wax ne moom def na choix li xam moy jëm équipe nationale du Sénégal loolu nañ ci indi ay léral au cours de la vidéo mais encore gars yi VAR bi wax encore une fois hein. donc euh, comme je l'ai dit dañu lancer ben collecte pour notre frère notre ami ko xam ne tamit suñu mbokk la suñu lepp la di ki nga xam ne muy Souleymane Silla wax naa ko benn cousine moom contacter contacté donc actuellement ñu ngi def collecte ma ngi wax jaajëf leen yoon parce que jigéen ñoo gën di wane seen bopp instant yi comme on dit gars yi xeebuñu leen lu way am donc dinaa defat en ci épingle waat li nga xam mooy information yi tout lu way am def ko ci bu ñu amee benn somme bi ñu jébal ko ko def vidéo ñu wax ne jot nañ ko parce que lépp ci transparence li am gars yi on support parce que également koo xam ne avenir am ci football la ko def yaakaaram yépp ci football la ko def waa famille am yëpp yaakaar ko ci football mu nekk un joueur talentueux jaar HLM jaar également équipe yu mag fii donc malheureusement ndogal dab ko donc gars yi nañu wéy ah montrons que réellement que ni e-sport c'est une famille ku nekk li nga si mën na ngeen ko def léegi yoon jaa ngeen jëf ñu nekk ci Europe ak tugal aussi gars yëpp ah lépp lu si gars yi mën def rek xeewu 100 francs 200, cent lépp lu gars yi mën am rek on avance ensemble comme on dit gars yi li nag mooy li nga xam ne mooy donc tirage 32e de finale coupe du Sénégal bi mi ngi nii gis ngeen donc match yaa ngi noonu jëm ci aussi presque 64 équipes la ah ñoo war a discuter euh, li nga xam ne disputer plutôt li nga xam ne mooy donc coupe du Sénégal Sénégal mu mois de mai jumbo mois de juin que le meilleur gagne en tout cas en tout cas ay match yu neex a aussi parce que le niveau du championnat local au fur et à mesure ñuy dem muy di élevé mais aussi en prix Marc Vivien Foué. donc Ramon ngeen il Idrissa Gana Gueye dafa bokkoon si ñu ñu présélectionné woon mais malheureusement bokkul ces trois finalistes yi lii décorer le meilleur joueur hein, africain de la Ligue 1 française ñi nga xam nak ñoo muy donc le joueur marocain bu Rennes nga xam aujourd'hui aussi mi ngi def saison bu exceptionnelle du côté donc de Rennes Momit lañu la ñu ah, mu rek nekk ci 3 finalistes yi parce que aussi il y a d'autres ah du mom kese mon nekk joueur bu ñu tànn bo xam Rennes Rennes la nekk mais avoir également on a Seko Fofana le joueur donc de Lens mais également ah, ivoirien ah, l'ivoirien Seko Fofana nga xam aussi mi ngi def saison bu stratosphérique le milieu de terrain saison bu exceptionnel Seko Fofana contre keroog Paris Saint-Germain. Bouffé ne lance nul avec Paris Saint-Germain. C'est grâce également à lui parce que lance ils étaient réduits à 10, mais il a fait un match. Mais que dire de Amari Traoré, le capitaine des Aigles du Mali et également de Rennes. Amari Traoré, bien aujourd'hui, c'est presque aussi le Dugay Rennes hein, par rapport à saison Def, aussi sollicitation, mais c'est un excellent joueur. Pendant ce temps également, Bouffal, Mom qui Rammoy, Ali Logic, Damna Setan, Setikobo. par rapport la blessure de ama hein. donc nous allons wax prompt rétablissement malheureusement d'où mën jouer li nga mondial bi mom nga un des hommes forts du Maroc étant donné que ki nga xamné Hakim Ziyech ay Mazraoui ndax ki nga Rasoul Ndiaye aussi Gaï, le joueur, hein, la pépite de Chosso, de Chosso plutôt, le protégé de Omar Daf, le milieu central hein, Bou euh, Sochaux, bon, actuellement Saint-Etienne mon petit Rasoul Ndiaye qui est en train de faire une saison exceptionnelle également. Erling Alon Gaï, deux fois il signe en tout cas pour Puma dal moko proposer contrat pour mu c'est un sponsor pour mon ex sponsor pour ma dès qu'on a defal offre mais nenañ bu fekkee ne dem na Manchester City pour moi mon ne doubler offre bi loolu tax ñu jàpp ne loolu sax dina gën a pousser Alon mu dem fa ndax koppar gu fekkee ne Puma euh, dako ko ko proposé d'accord ak pour mu nekk sponsor ki nga xam aussi mooy Ousmane Dembélé gars yi les informations waxoon naa leen ko démb la manager mo wara waxtan ak Barcelone nee nañ ñu ngi commencé déggoo 20 millions par an lañ wax ak prime de signature 20 millions donc loolu la gars yi di wax actuellement ki nga xam aussi moy Djibril Niang moy agent wu ki ngeen di gis ni di William Saliba nga xam Arsenal moko al Marseille donc selon les informations Djibril Niang nak nee rien n'a encore été décidé Arsenal waxu len darul leer dañuy bàyyi ba fin de saison bi ñu xol ndax Arsenal da koy té wala Marseille da koy defal proposition proposition moom d'accord, na Jurgen Klopp qui prolonge du côté de Liverpool jusqu'en 2026 Mon nga xamné contrat am 2024 la waroon dier Jurgen Klopp nak mom de manière très ironique hein ci ay kaf donc dafa nek ci cuisine mak jabaram jabaram ne euh, euh, chérie sincèrement man gisuma la nga jógee euh, fi nga xamné moy Liverpool en 2024 Mon ne loolu nag mu aussi moom loolu la sentir et moo tax mu prolonger ak équipe bi nga xam ne mooy Liverpool ba 2026 ak staff am yëpp ah nee na mook staff yëpp dañuy toog Liverpool ba 2026 et c'est déjà bouclé ki ngeen gis ni nag ah moom mooy la euh, ñëpp di coow ah mooy le propriétaire ci nga xam ne mooy donc Chelsea moom nag Raman Abramovich nee na deux milliards et poussière lay laal lay laaj pour mën a jaay Chelsea donc wax na dëgg ah ak Chelsea fi mu toll nii ak fi mu ko fekkoon nee daal ku ko fayul deux milliards ak poussière ak li ci teg moom doo mën a jënd équipe bi nga xam mooy les Blues de Chelsea la bonne nouvelle gars yi mooy Moussa Niakhaté ngeen gis ko nek actuellement di évoluer fa nga xam championnat Allemagne en Bundesliga mom n'ak actuellement gars yi RMC ñoko defal entretien wax ci et tout mom le 8 mars bi passé la en 26 ans mom gannaaw ba nga xam kamara Boubacar Camara mom nenañ day équipe nationale du Sénégal qui a donné son accord de principe et tout. Moussa Niakhat bom aussi gars il s'est prononcé wax ci carrière c'est un joueur qui est important c'est un défenseur aussi Il peut mën apporter Sénégal lu parce qu'il est polyvalent mais aussi taille et tout c'est un joueur aussi bon à son âge nekk na capitaine mental bu fort la am donc gars yi laaj nañ ko mu man choix du cœur RMC ne ko a fi à 26 ans yaa ngi eh, toll foo euh, sur ta carrière xeyna jël nga décision par rapport équipe nationale bi mom nga xamné ne jaar na ak à Metz d'abord. abord c'est vrai que actuellement sama saison d'abord, nek na saison bo xamné bama ñëwé fi moy équipe bi ni Mayence bu mu fi ñëwé donc dañ ma jox sama chance jox ma également possibilité ma évoluer nee na moment mënoon naa signer primary ba ma nekkee Metz mais man dama ñëw fi gaay yi déglu leen xool ne liñ ma proposé mën fi évoluer motax tax ma ñëw fii nee na aujourd'hui il a fait son choix et que choix bi mu def c'est un choix du cœur nee na bëggul né ko xamné il est égoïste et tout def na choix am tel na def choix am donc ñim ko wax dinañ ko wax légui nak gaay est-ce que équipe nationale de France le jëm est-ce que l'équipe nationale du Sénégal le jëm mais à l'entendre parler beaucoup de ci li muy il est presque probable que mu équipe nationale du Sénégal parce que gars yi laaj nañ ko à ko dégg nañ ne Aliou Cissé contacté na la mu de toute façon li may wax du ma ko wax ci média bi dama koy wax ñi ko war waxal mais ce qui est que mooy jël naa sama décision donc gars yi mën am confiance ne ki nga xam moi Moussa Niakhaté day ñëw équipe nationale du Sénégal inshallah allahu rabi parce que lui il a donné également hein, il est partant pour ñëw équipe nationale et ne n'oubliez pas que ne ki nga xam Moussa Niakhaté gars yi da doon et Sénégal hein, comme ni fii Sofiane Diop di ñëwee c'est un Sénégalais ah fii la nekkoon de doon et tout donc il est il est il a, la culture sénégalaise et qu'aujourd'hui aussi il y a possibilité yi pour jouer équipe nationale Sénégal ni ñu ko a valoriser ni ko jox chance de jouer ak aussi équipe nationale Sénégal nous, avons amee ay joueurs yu talentueux comme ni ko France Amé, ce serait une bonne chose et aujourd'hui comme je l'ai dit encore en gay Sénégal moom Jigen bu njëkk la muy taille fine wala taille Coca-Cola muy diriyanke ak nu mënti mel gis da koy nopp te wax dëgg yàlla ñëpp bëgg actuellement ne sama jabar sénégalais instant quand je dis ça ça veut dire que nous bëgg et wax équipe nationale du Sénégal a joué. en tout cas les gars c'était les informations n'oubliez pas l'aide pour notre frère Souleymane Silla. jaa